bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa shafiicina wa mawlaana Muhammad ibn Abdillah wa ala aalihi wa sahbihi wa sallim ixwatil iimaan samaahatu shuyuux ma'aalil ulamaa ayyuha saada asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki te yi ñuy déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di leen balwaq te di leen balaax di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yal na nu boole jéggal yal na yàlla doole faj aajo yi teggi tii si saafara jàngoor yi te jéggale bàkkaar yi yal na nu yàlla gën a xeet ci boppam aar ñu làq ñu fa yàq yeggul yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule lu nu am yal na nu yàlla lu nu ñàkkit yal na yàlla yal na yàlla gën a sàmmal boppam yal na yàlla gën a aaral boppam bi jaay si lu wa alami shuhud ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baal ñëpp di leen balu baarakallaahu di leen ndokkeel ci bis bu màgg bii nu bàyyi koo wala ay bis yi euh, nu bàyyi koo muy fukki fan yu jëkk ci shahru zil weeru tabaski di ñaan sunu borom subhaanahu wa li mu ñu ci dig lépp ci lamiñu yonte bi sallallahu alayhi wa yàlla bu munu mooy yàlla na ko yàlla xëpp ci sunu kaw wasaare ko ci aswaan askan wi mu saawaan baawaan ñëpp jariñoo ko li yàlla dige ci euh, arafaat yal na nu ko yàlla xéewalal te wërsëgal nu ko li yàlla wax ci tabaski yal na yàlla wërsëgal te nu ko séddale nu ko juróom fan juróom fan juróom fan juróom fan juróomi fan ñeenti fan fan ñaari fan benn fan lépp li yàlla wax ci charu si xijja na suñu boroom subhanahu wa euh, wërsëgal nu ko mu saawaan baawaan ñu ndokkeel ci kilifay diine yi ñëpp nag sunu baay yu baax yi sunu maam yi xulafaaw yi ñi fi toogee toogaayu mag ñi ñu ngi leen di ziar di nuyu borom xam-xam yi borom xam borom borom borom euh, asatise yi ak imaam yi ak jigéen ñu baax ñi nga xam ni fu ñu toll ñu ngi dimbali lislaam tey dimbale ñii dimbali lislaam jigéen ñu baax ñu yore daara tey jàngale ak ñiy yare yéen ñëpp ñu ngi leen di wax kullu amin wantum bi xayr ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel bu baax a baax a baax ndokkeel Baye Umar Guèye sunu directeur mi nga xam ni moo nekk sunu kanam di sunu njiit di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal wiir ak wér lettal ak fekke zahiran baati baatinan moom ak njabootam eh, ak personnel bi mu àndanteel ñëpp di liggéey Ajaratu Ndeye Mariam Ndiaye ak journaliste yi technicien animateur administration ñëpp ñu ngi leen di ñaanal kullu amin wantum bi xayri beral desk religieux alxaaji oustaz Alioune Sall sunu magu daara sëñ imam Momar Seck alimul allaama alfaham al murshid l'éducateur yal na yàlla sàmm ko te bàyyi ko suñu kanam ñaanal sëñ Mbàkke Silla l'oustaz de l'espoir ñaanal ko jàmm ak wér ak xéewal sutura beelal nuyoo nag imam alxaaji Maodo Faye mi nga xam ni mooy chef desk religieux ñaanal ko bu baax a baax a baax ñaanal kilifa yu fondement rajo bi ñëpp ak soppe yeeg am di jàmm yeeg fu faay mën a nekk yal na yàlla yokk jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër ñu ngi leen di wax déwénit leen kullu amin wa antum bi xayrin yal na ko fekkee ni si déwén te kenn bañ a manqué mbas mii nga xam ni moo xewaat di jiim ni day dellu seey yal na yàlla dakkal ko yal na yàlla fel tànkam ba mu dellu fu mu jóge woon soxla wunu la bëggunu la yal na yàlla jeexal tàkk bépp fitna yàlla ku ne xam na ne ñun dañu la xamul <clears throat> waaye bul yàlla boo jëflante ñun ci maandu yàlla boo jëflante ñun ci maandu soo ko defee dañuy jeex tàkk yërëm yërëm nu rek te jéggal nu te xam ni dañu la xamul ni nga nu bind nag nii rek la mën a mel di la tooñ di di la weddi def la moroom sunu jom moo néew rek waaye yow ko la xam respecté la ñu ngi lay ñaan nag mbas mi bu mu dellu si bul xool mukk ñi mel na mante di la tooñ ak di la mooy mukk xoolaat ñu ñu baax ñi nga xam ni yaa leen ber ba ñu beru nga segg leen ni ñii samay gaay lañ nga xoola ñu ñooño rek ñu ngi la koy ñaan bi rahmatika arhamar rahimin ya rabbal alamin ndax nit moom jubal xocc mu yaakaar naa ne yomb ko waaye nag yàlla boo nu topp ci ni nuy jafe ni nuy jëfe yàlla boo nu topp ci ni nu mel yàlla boo nu topp suñu dëgër bopp yàlla boo nu ñëwee yàlla boo ñëg ci ñun yàlla boo nu mere waaw attanu sax dara dara dara jàmm la nu bëgg ak lu neex lu topp suñu bakk na nu bëgg waaye topp gii nga nuy sant sax lu jafe la waaye nag yow ci sa mbaax rek lañu lay ñaane di la yelwaan fitna gi daal ñu ngi lay ñaan mu dellu fa mu jóge woon fa nga woon te kenn xamu ko delloo ko fa rek ñu ngi la ñaan yàlla ci sa yërmande ci sa kàttan waaw commencé nañu jaaxle commencé nañu tiit comme nanu demee woon ndax demoon ba jàpp yaakaar <coughs> waaw lii commencé ñëwaat yàlla mu nekk troisième wàgg yàlla na jeex takk saa wu nu xëytee rek nañ ci déglu ak wàññi ko bu mat sëkk sëkk sëkk bi jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci barke sa bisu sell yi ci barke Kaabatulaay musharraf ci barke ibaadu rahmaan yi nga xamante nii ñooy say jaam bi nga xamante ni ñoom nga gërëm bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ajuma ji nu génn nag danu ñëwoon woon rek ci wàllu tabaski yi moo taxoon fa nu tegoon sunu baaraam ci yonent bi sallallahu alayhi ñu ne woon kon nanu dellusiwaat ci wàllu tabaski gi ñaaxaat ci sunu bopp ñaaxaat ci njaboot gi moo taxoon ñu duggoon ci wàllu tabaski gi kon nag tey dañu ñëwaat teggiwaat sunu baaraam ñëwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa nga xamante ne foofu la ñu yemoon ak moom mu ngoog صلوا عليه على ذاك السرير رضا كما به رفع الصديق في غممه وسليا يا إلهي وجسيا أبدا أن محمدنا المختار في القدم Sidi Xaaji Maalik nee na sallaw alayhi boo xoolee bu benn way way wi jiitu sallaw alayhi bi may wax da nga lahoo sariirun Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na lal boo xamante ni xat ihdaa mayoon ko ko Asad ibnu Zuraara asrat ibnu zuraara mayoon na yonent bi sallallahu ab lal yanaamu alayhi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daaw na ci tëdd daante nelaw aha mu ni alqalbu lam yanami yonent bi sallallahu alayhi nag daan na nelawee bët waaye xolam daawul nelaw moo tax nelawam du toj njàppam danaa nelaw yewu julli ndax xol mooy nelaw waaye bët du nelaw bu xol nelawee nag boo yeewoo na la jàppal waaye sang bi sallallahu alayhi wasallam bu bëri day ne la dum xool baa ngay xool ak liggéey noonu ko yàlla bindee lal boobu nag nga xam ne Asad ibnu Suraara moo ko joxoon bi mu génnee àdduna sallahu alayhi moom lañ ko jullee ca lañ ko teg moom ca kaw lal boobu def ko saaru jaat muy sërkëy ala zalika sarira ca booba lal boobee rida yal yàlla gërëm ko sallallahu alayhi lal boobu mu pare dañ ko denc def ko saaru sërki kama bihi rafaxu siddiq aboubacar sadiq mu génne àdduna moom lañu ko jullee wa hakaza ni ki noonu omar ibnul xattaab mu génne àdduna ca lal boobu dañ ko jullee ginnaaw bi nag wan naasu nit ñi ñoom ñépp daawaloo doon nañ ko awante baaduhum kenn ci ñoom ku nekk ku musa am new ku nekk jëli nga lal boobu barka barrukan di ca barkeelu ndeke kon barkeelu yàgg na fi lal bi ñuy jullee bi sallallahu wasallam fa lañ ko teg fii hamli maytihim ku am néew di ko yóbbu nga jël lal boobu teg ka ca ngir nga eh, yaakaar ci yërmande sunu borom subhanahu wa taala kon nit ki mën nañam ci moom yaakaar nga di kilifa diina ñëpp yaakaar la ñu jël sa mbubb muure ko e, jëmm yaakaar ci sirmande mbaalu ni mel mbaalu ni mel mbaalu ni mel tabarrukan barkeelu ci moom ndax ku ànd ak ku ñu rus ñu rus la waaw ku ànd ak ku ñu rus ñu rus la sang bi alayhi salaam yàlla da ko rus jox ko cër fonk ko ba ko ànd ak moom mu rusaale la ci sallallahu alayhi wa sallam waa maama laaji lal boobu fu ñu ko defaree mu ni alwaahu kaan abdullahi shariha bi qadri arbaatil alaafi faqtanimi nee na alwaahu dénkam ye kaan abdullahi ku ñu abdullahi shariha moo ko jënd ba mu lew ko ñaata la ko jëndoon maam mu ni bi qadri arbaat alaafin ñeenti junni la ko jënde woon faxtani mi màngal koom ñeenti junni nag boo koy xool ci riyaal di ko xool ci CFA léeg-léeg ñu tudd la fii benn somme nga xool somme bi mu rëy lool ci yow fekk na ca xaas booba du fa dara mu ngoog mu ñu wax xat wa kaana xat biya fi matruki aichatin iyaahu mahlakaha alhaadi ilal karam hmm, mallakaha boog ngoog iyaahu mallakaha alhaadi nee na lal bi nañ ginaaw bi dañ ko mujjee jaay ndax aïchatu lañ ko mujjoon a jox moom la ko yéen bi sallallahu alayhi a may moo tax bi aïchatu génnee àdduna dañoo mujjee jaay euh, dañu mujj jaay dañ koy dañ koy jaay lal boobule ndax dafa bokkoon ci yi ñu waroon miraase Aïcha mu ngoog waa maam yaa ngi doon limal rek sang bi amoon mu ni wa xaabuhu yonent bi sa amoon nag bagaan tudd aa bu tudd saatan saatan la bagaan nga tuddoon bi xayri miran kenn werantewul ni turoo noonu la mel mu ni wa illatul kulli nag ay maanaam yillay lépp lu ñu tudd rek ni nii noonu la tudd tabdu day feeñal inda muftahimi te lañu ko tudde maanaam lépp luñ tudd rek boo xoolee la tax ñu tudde ko ko mooy yillaam loolu la méngool moo tax ñu tudde ko ko mu ni wa sàmmi maam laaj maay nee na nee na nga na nga tudd xasaatuhu bagaanam ga alxorraa bu weex tàll la nee amoon na genn bagaan bu mag a mag a mag a mag a mag fii xelaqin gu amoon ay jaaro xam nga luy jaaroom maanaam boo demee ci kër sëriñ si wala fu mel ne Touba wala nga dem euh, ci màggal gi mbaa gàmmu mbaa nga dem Medina Gunaas nga xamante ne ñii togg ay góor lañu ndax togg yooyu jigéen ñi seen doole attanuñu ko mais bagaan yooyu di ci gis bagaan gu mag goo xam ne nii dañu ko dañu dañu ko dañu ko dafa may jaaro maanaam loxo ba kii ñiy jàpp dañu koy jàpp kii lay jàpp fii jàpp fii mun na yéen di sax nag amoon na bagaan gu mag goo xamante nii fii xalaqin amoon na jaar yoo xam ne daalin ñeent la nee na wa yaxmiluhaa daa naka jàppoo daalu ñeenti ponkal kañ minal utumi ci jamonoy bernde ci jamonoy bernde bu ñu mosaan may gan bay bernde mbal mbaana yooyu lañ daan génnee te ñeenti ponkal ñu ko daan jàpp mu ngoog di ko jàppoo lahoo jibaabun mu nu yonent bi sallallahu amoon na jibaab mooy mbaxana yoo xamante ne nii da koy sol këppoo ko mu muur ba muur say nopp yi waaye mbaxana ma moon amoon na abun ñetti takkuwaay muy ñetti laar nee yoo xamante ne yàlla ba haa daanaka sol yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi fil xar bi ci jamonoy xare ci la daan sol ndax loolu protection la woon mu ni xaaisun xaaisul xatami yonent bi saa sallam amoon na maanaam amoon na jaaro amoon na itam ay jaaro yoo xamante ne min fiddatin bu xaalis la wa xadiidin ak boo xamante ne weñ la amoon na jaaro weñ ak jaaro jaaro xaalis mu ni muhammadun naqshun xaataami nabii rasulullahi sayiduna almunji min anniqami nee na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amoon na tam tampon ndax suñ tàmpon boo xam ne xaataami nabi benn jaarul boo xam ni xaatim la moom lañ daan signé moom la daan tampon mu defoon ci muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaji bi saaxu nee na jaaro boobu mos na ko jox aboubacar ni ko demal ca tëgg ba ñu tëggal ma ca muhammadun rasulullahi tëgg bi tëgg ko ba pare mu def ca muhammadun rasulullahi abubakar sadiqullah mu ñëw yonent bi saa ni ko def lu ma ci woon lii de muhammad rasulullahi muhammad rek laa ci defoon defa def ci allahu laa waxoon nga defal màgg ci abubakar ni ko may tam ne li nga ma ci waxoon dong laa ci def lii nag def lu ma ko ci tey xaw ma ko ko ci def waaye kama ka santoon tam sa kama ka joxoon di ko liggéeyloo lii tam santuma ko ko jibril ne xaayi ne cëpp ne sa borom moo ko ci def lu ni yàlla bañ ko tàqalee saw tur noonu la bañ ko tàqalee saw tur ak Aboubacar boo ne Muhammad rasulullahi ni diina lislaam gën ci diina yi mu jox la ko la la ciy dugal mooy ashhadu laa ilaha illa allah ak wa ashhadu anna muhammadan rasulullah boo waxee ne ashhadu laa ilaha illa allah lànk ni doo wax muhammadan rasulullahi doo bokk ci diine jii di diine lislaam moo tax yàlla nee na noonu ma bañ a tàqale saw tur ak sama tur noonu laa bañ tam ko tàqale saw tur ak Aboubacar kon xam ne Aboubacar <laughs> daw na de daw na daw na daw na daw na bu baax a baax sax naam fasam daw na lool ndax Aboubacar waaw ndax baka shururan kaman kaana fi shillatil alamin <laughs> a istihaaban tastahaabu is qala nabiyu naam baka sururan mu ngoog kooku ma nga ca eh, waxtaan ñe la ñu weesu ca gàddaay ga mu ne mu ni xaataami nabi jaaro yi maanaam tampoŋu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi muy kuy kooku alaaji Malick maam mu ni almunji boo xamul ki may wax sayidna mooy sunum sang almunji ka nga xam ne mooy xettali mina niqami ci safara ak ci musiba wa baadu xaataamihi amoon na jaaro yoo xamante ni fil xis yi ca njoŋ la minhu amoon na njong maanaam da ko dafa mel ne lu ñu soy maanaam lu ñu soy maanaam da jaaro baaraam yooyu mu amoon doon ko sol nee na ci kaw gi dafa amoon tuuti wurus nee na xissuhu min afifin beneen bi tam am na tuuti peme lii peme la lii wurus la mu ni xum alaaji maay gay wax mu ni jógal yow taalibi bi jàng bil ulumi ci sàkku xam-xam fexee la xam lépp waaye bul di nga tax a wetti waa maam si xaj Malick jaaro yooyu moom nu ma ko doon def mu ni fataratan bi yaminin taratan bi yasarin jailin qissahu fi kafihil karami mamalaj maaj nee na fa fa taaratan léeg-léeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ba bañoon siiw la ku ba ku bañoon puukarewu la ku sempaloon la ku woyefoon la mu ne fa taaratan léeg-léeg bi yaminihi jaaro boobu da ko daan takk ci loxo ndey jooram nee na taaratan léeg-léeg bi yesaarihi mu takk ci loxo càmmoñam nee na jaa ilan muy def nag euh, fissuhu njong la maanaam loolu nga xam ne moo moo moo moo daan féete biti nga ne boo ngëbee sa loxo daan fu ngu noonu di melax nee na fii kaffihi la da ko daan warangi ba mu nekk ci digg loxoom mu di ko ŋëbaale pour bañ rek puukare ak bañ ñu defee ni da ci bëgg ngistal wala nangam wala nangam moo mooy mooy li wax rek ni moom ku ku bañoon adduna la ku bañoon ngistal la sallallahu alayhi wa sallam mu ni jaaro boobu nag maam alaaji maa nee na xam naa fu mu mujje xam naa itam ku ko mujje ñu ko am maam koo la mu ne min baadi ginnaaw bi mu génnee àdduna moom yonent bi sallallahu alayhi yor siddiqi dëgg laa kon ba waaw moom ba mu ba aboubacar génnee àdduna nag mu ni xam naa it ku ko yor ñu ne ko ku ko yor mu ni ko zaaka omarul ni ko omar ibnul xattaab donn na jaara boobu daan ci signé daan ci bind waaw ñii ñaar ba nu demee xanaa Ousmane la mu ni waaw kazaaka Ousmaanu fii te daawulin karamin usmaan daawoon na yoroon na ko moom itam la muy toog la muy gàtt gàtt gàtt bien vrai que dañ ko mujj boom Omar dañ ko mujj boom waaye ci ci Ousmane mii la jaaro bi mujje waaw maam Alaaji fan la réere ak nu mu réere mu ni aw kaana biiru arisin saaqitan yuqaalu dain fi yawmi daarik zaakan laka lam yaquumi mu ni aw kaana biiru arisin saaqitan wa yuqaalu daa fi yawmi daarin zaaka lam yaqu teen bu ñu wax biiru arisin biiru arisin nee na saaqitan ca teen boobee la wadd moom jaara ba fa la wadd fa la réere wa yuqaalu am na ñu ni daa a réer na fi yow ma daa mi daarin bis bi nga xamante ne nii maa ngi leen ko doon nettali ci àjjuma jële bi Souleymane amee ci xilaaf ak Ousmane ca ba ñu jógee Makka ñii jóge Égypte ñii jóge fu ne ci araab yi ñu wàcc si Medina encercler kër Ousmane ci Amr na As moom moo faloon ca Égypte nettali woon naa leen histoire ba nee nañu bis boobu ci la jaaro bi réer waa maam lii wér na maam ni déet dafa ndànk nag dama la indil ñaari wax mooy teen ba mu wodde ak histoire bii maam laaj may ngi nee na zaaka wax jiinu wax nag ni ci bis bi ñu encerclé woon kër gi la wax jooj lam yàqu mi de wax jooju jubul de wax jooju taxawul loolu saxul saxul ci borom xam-xam yi ah, maam waxal yaa war a wax waa lan la amaat mu ni ko zaaka xuffaani kaana saasajayni imaamatun sahaaban tusamma lil haadil xisami waaw aw xidami mu ni ka saaka yonent bi saa amoon na rufaani ñaari kawas dàll yu ñu tuddee rufaan gis boo déggee nañ jullee kawas baax na jullee dàll baax na dàll yooyu tax ñuy wax dàll yu ñu wulli ba mu nooy la nooy nepp boo demee ci kër sëriñ si bëkk néeg yu bari di jàmbaari fëkk fàkk te di ànd kilifa yi dinañ koy faral di di yor waaw boo demee laayeen ci bisu appel bi di nga ko seet ñu gën a jege kilifa yi dinañuy faral di am yooyu dal boo demee ci appel bi <clears throat> boo demee Tiwaawan euh, jëwri ñu gën a jege nga xam ne mënuñoo ñàkk di gis sëriñ bi di dugg fi barab yi nga xam ne nii ñoom rek ñoo fa mën a nekk ndax ñooy nopp kilifa gi ñooy bëtu kilifa gi dinañ faral di am yooyu dal soo demee Rawdu Rayaahiin boo demee du kilifa kër yu bare bare bare ñi leen gën di jege te leen di doxal yenn yónent yi dinañ ko faral di am. mooy xoof faani boo xasee ba yor njàpp fu ñun liqaamee ba la neexee ndax amul sobe mu ni kaanaa ñaari kawasam yooyu nag saa jay ni wenn melokaan la ñu amoon amul benn couleur waaw day ñuul rek mbaa mu weex mbaa mbaa mbaa waaye nag amul ñaari couleur amul tupp tupp maam ak lan mu ni imaamatun amoon na ak kaala amoon na kaala boo xamante ne nii saxaaban la tuddoon tu sàmmaanoo nañ ko tuddee lil haadi yi ñeel Moustapha mooy orientaliste bi nga xamante ni ku mu jubbanti dootoo dëng alxidami ka nga ak ki ki nga xamante ni mooy kii kii xaayaan xaayaan mooy ki nga xam ne loo xam na ko xaayaan a ngoog xaayaan <laughs> macha allah la maam alaaji nee na min bayni ak na ak aktaafihi qad kaana murxiyaha ma saxa fiiha xadiisun jaa min alxudumi nee na min bayni ak naa aktaafihi ci diggante ñaari pàllaxi mbaggam yii kaala googu mu yoroon nee na kaana murxiyaha danaan yoor ñaari catam ya su ko laxasee ci baat bi ñaari cat yëpp ginnaaw la ko daan féete maamalaaj ma nee na ne maa sax wax jooju nag wérul fii haa ci ci ñaari ñaari cati kaaram yooyu ñu wax nag daan yoor mu féete ko ginnaaw nee na wérul de ndax xadiisun benn xadiis yaa dikkul minal qudumi bàyyi koo ca borom xam-xam yu jëkk yi ñi daan solo xadiis amul kenn ku ko wax kon wax jooju wérul fii zahirin li gën a fis qadruha kaalaam googu yaa azruin yaa siqati am na fukki xasab maanaam fukki xasab lay tollool siqati yow sama ndëgër laay aw fawqaha mbaalu ko gën a yées tuuti bi yasiirin mbaalu ko gën a yées inda zil xikami bàyyi koo ci boroom xam-xam yi ngoog xalaanisun soxurat fi rasi laati atun sahaabun yalbasuhaa min fawqi laa tahimi maam alaaji maa ngi nee na xalaanisun amoon na koppati saxurat bu ndaw boo xamante ne laati atun bu saxoon la fi raas ci boppam bi amoon na koppati su ndaw soo xamante ni daanaka moom dafa dëkkoon ci bopp bi noonu ndaw de bopp niin sahaabun amoon na tam kaala goo xamante ni yalbasuhaa daawoon na ko sol min fawqi ci kaw mbaxana ma gis nga koppati soo su mu amoon mu saxoon ci bopp bi amoon na tam amoon na tam kaala goo xamante ni daga daan sol min fawqihaa ca kaw kaala ga da daan sol mbaxane moom ba pare jëlaat kaala teg ca kaw ngoog mu ni zaatu laa zaanin zaatu laa zaanin aydan kaana yalbasuha min alxurubi nee na mbaxane moomu mu daan amit amoon na laa zaanin mbaxane mu am ñaari mbaxane maanaam ñaari nopp yu gudd amoon na tam lu mel na lu protesté wu ci jébi ak ci loosam mi noonu nee na yàlla daaw na ko sol kañ minal bi ci jamonoy guerre xesabrul xiili gayndeg ñeloor gi nga xam ni moo doon gayndeg fàkk tëdd wal mi ak gaynde ajam yi wax ba jee wax jee des mu àggalee ko ñaari baat yi mu ngi أما الطوال أما الطوال فبعض البدر قد حدثت أيام سيد المنصور ذي الكرم mu ni ama tiwaalu su dee laafa mbaxana yu gudd yi xew léegi laar yu gudd wàcc ba sa ndigg nee na xadusat ginnaaw bi la xew ginnaaw dañu ko sos baadul badri ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam génnee àdduna ci la yooyu xeeti mbaxane am mais ci jamonoom loolu amul woon kañ ay yaama sayyidina al Mansuur yi ci jamono dawlatul Mansuur ñu naan dawlatu Abbas yi dawlatu nangam nang révolution euh, Abbas neen ci la yi xew zil kremi ka nga xam ne mooy doon jàmbaar te dimbali diine lool ngoog mu ni qaala nabiyu zawul islaami gisal ictimaau ictimaamun xawlu hurtasimi qaala nabi yu maam alaaji maag na yonent bi sallallahu alayhi wasallam na zawul islaami yéen ñi nga xam ne yéene ay julit maysuhum liñ leen di xàmmee ak ñi dul julit nee na alal xalaasi moy mooy mbaxane mbaxana nee na soo mbaxane ba pare itimaamu ak kaala fawqahu ca kaw mbaxane ma irtasimi nee na màndargaal loolu màndargaal loolu nee na jullit liñ ko xàmme ak keneen ku dul jullit mooy mu sol mbaxane ba pare sol kaala maanaam teg kaala ca kaw comme alaaji Abdou Aziz ni mu ko doon defee comme suñu Abdoulaye ni mu ko doon defee suñu Abdou Khadir mag ñi nga xamante noonu lañ defee xamante demal demal ci ëttu maam li maamu laayeen bopp bopp nin xaju fa rawatina kilifa yi nga xam ne ñoo yore mbir yi ah, kilifa di diina dëgg-dëgg ibaadu yeeg ñëpp ku ci nekk tey yuy melokaan euh, euh, daf leen a ñor te dañu ko dañu koo mel dañu koo dañu koo mel moo tax nee na zawul islaamu melokaanu julit may zuhum lañ leen di xàmmee de alal xoloos yi mooy mbaxane itimaawun ak kaala fawqa waaw xawluhu irtisimi nee waxam jooju nee na ko màndargaal waaw moom nag maam mu ni ñëwal nag ma wax la li ma xam ci moom yonent bi sallallahu alayhi mu ni duunal xalaanisi nee na yaatamu nabiyu nee na yaatamu an nabiyu daawoon na kaalawu nee na yonent daawoon na kaalawu yaatamu mu yonent bi salaa daawoon na kaalawu duunal xalaanisu te du ci teg mbaxane nee na zu taqallusi daawoon na tam kaalawu maanaam daaw na sol mbaxana te du kaalawu daaw na kaalawu te du sol mbaxana daaw na kaalawu ba pare teg ci mbaxana yooyu yëpp sang alayhi salaam na ko def nee na albarro yonent bi salaa salaam lam yahimi nelawul de lam yahimi nelawul de mukk ci àdduna ni nga maam laaj na waqul waxal ni lahoo ñeel na ko yonent yàlla Muhammad salaa salaam raayatun drapeau bu tudd nan mu ñu tuddaa al uqaaba drapeau bu tudd uqaaba amoon na ko liwaawun am na beneen drapeau boo xam ne sàmmi tudd nañ ko alhamdi liwaawul hamdi nee na wasfil xaqi tattasimi melokaanu jullit nanga nga ne mel yow miy wax ak yow mii déglu nanu fexee mel melokaanu jullit gis nga wax bi kon la koy ca bayit bi jiitu lii melokaanu jullit rafet na mënta sa bax bi qawmin fa huwa mu ne kaza kaza lahu raayatun baydaaw qad du'iyat bi ziinatin udda safraaw falam tazumi ne na kaza ni ki noonu tam lahu ñeel baydaaw bu weex amoon na bu weex qad du'iyat drapeau boobu ñu ngi ko doon tudde bi ziinatin drapeau euh, taar waaw bu ñu amee luñ taaral wala am sàppe yu daan defar pour motiver walla lu daan génnee di ko wan ñi xam ne du ay jullit bokk na ci drapeau boobu ñu tuddee ko bi zinatin drapeau bu ñu daan génnee maam laaj maa ne na udda konteel drapeau yi sofra am na beneen drapeau bu jaune boo xam ne amoon nanu ko nee na falam tusu mi kenn du la mere kenn du la weddi itam <laughs> la ilaha illallah mu ni kamaalahul naalu ni ki noonu amoon na ay dàll yoo xamante ni xat du ayet tuddoon nañ ko bi sofra yi daal yu jaune nee na yonent bi amoon na daal yu jaune wa sàmmi nee na itam tuddal te bul fàtte fostatuhu amoon na tànt tànt boo xamante ni nan la tuddoon maam mu ni bil kinni amoon na tànt bu tudd kinni tànt la boo xamante ne nii dañ ko ko daan defal muy arish ñaari da nga daan dégg sax ci xare bi daan nettali am na tànt bu ñu ko daan defal tànt boobu sang bi alayhi salaatu wasalaam tànt bu mi ngi turoon kinni nee na tastaqimi bu waa da ngay jub xocc ci nga li nga xam te moom nga war a wax doo wàññ doo yokk te du yées mu ngoog mu ni addit booy limit na nga lim rida rida amoon na kaala burdatun amoon na mantu kaanat boo xamante ne yamaan yi tun yaman lañ ko lañ ko ko joxe woon burda nee na manto boobu fii jumaatin bisub ajjuma daawoon na ko sol di ko jullee suma fii ciiday ni tabaskee koritam daawoon na ko sol di ko jiitee tabaskee korite nee na talta imi nga wax dëgg waaw nga wax dëgg janoog dëgg kenn kenn du la weddi mu ni imaamatun imaamatun kaanat sawdaau yalbasu fi lciidayni murxiyahaa min xalfihi iftaximi <laughs> maamanaa ji maa yeg nee na imaamatun amoon na tam kaala goo xamante ni kaanat nekkoon na sawdaa bu ñuul kukk kaala gu ñuul googu yalbasuhaa daawoon na ko sol maamalaa ji maalik al ciidayni ci tëbëskee korite nee na bu ko musaan sol nag moom ni mu ko doon solee murxiyaha min min xalfihi da doon laxas ci baat bi ñaari cet yi mu sànni ko ci ginnaaw ci mbir mbicc yi di wàcc ci ginnaaw nee na iftahimi xamal lool mu ne bayda wa sawda wa safraaw yu laabisa yu laabisuhuma waaw yu laabisuha mu ngoog amul em amul nuun eh, imaam Ahmad Sow tey daa mel ne wayi daa ma ngoog mu ni bayda imaam Ahmad Sow Cheikh Ahmad Tidiane Ndaw bayda wa sawda wa safraaw yulaabisuha lakinnama al aksar al bayda fi l ma ne dama woon ñun mag ñi bu ñu leen amuloon fu ñu jëm bu ñu leen amuloon rek fan la ñu jëm ndax fooy dégg yi rek laa xamul foo koy dégg moo ma jaaxal mu ne bayda mu ne kaala gu weex wa sawda ak kaala gu ñuul wa safra ak kaala gu jaune nee na yu laabisu yu laabisu haa daf leen daan solante daf leen daan awante bu solee bii bu bu kaalawoo bii tey bu beneen mu kaala bee bu beneen mu kaalawoo bee kon sang bi ay sa ko xamoon sol la ko xamoon marié couleur la nee na lakinnamal aksara waaye li ëpp li gën a ëpp ci li mu daan sol nag mooy el bayda yëre yu weex fil ximami mu ngoog yëre yu weex daan sol ci mbooloo li ci ëpp moom daan sol teneem la woon sallallahu alayhi mu ngoog mu ni aqallu azbatiha daalul asaabii nee na minimum ci kaala yooyu mu doon am amoon na laar laar mooy ci mbir mi yooyu nga xamante ni moom la ñuy ràbbe kaala gi ca cet la yooyu di wàcc ci suuf nee na nag ci mbir mi yooyu mu daan am nag daalin daaw na ma ñeent yoo xamante ni daan na toll ni baaraam maanaam bu ko ràbbee ba pare lañ koy mujje ñeenti ci mbir mi yu yoor la yoo xamante ni guddaay bi dina toll ni baaraam xul wala nga ni ajalluhaa bi ci gënoon a gudd ziraaun duuna maa xumamin maanaam doon na tollu ni xasab xasab ci lu lu nëbbu waaw toll daaw na toll ni xasab mu ngoog mu ne addit limal ridan ridaa xam nga gis nga arab di tax mu ridoo muy daa bu tooy boobu ngërëm lay firi boo ne ridaa ridaa moom mooy firi mbalaan walla kaala moo tax gis nga maa leen doon wax ca émission yi lay passé euh, xeetu prononciation euh, prononciation arabe dafa doy waar waaw dafa doy waar lool ndax boo ak da du benn foo fekk fu ñu di war a def boo muy daabu tooy bi radiyallahu anhu radi muy boo nga def radi ridia boobaa kenn du xam loo bëgg a wax waaye li li dañuy mën a dañuy doyloo nag euh, siinu bilaal chiinun inda allah mën nañ ko doyloo waaye nag euh, jëf def effort euh, dàquñu ko ci kenn waaw te maanaam fii rek laa yam nañ ma jàppe comme bilaal déedéet siinu Bilal siinu indallah Bilal noonu la meloon am na ñoo xam ni seen làmmiñ noonu la mel waaye nag ku góor góor rek mën cee génn nag waaw moo tax rida bokk rida radiya radiyallahu anhu ak rida da daa boobu mooy firi mbalaan soo ne euh, alaaji Abdou Aziz radiyallahu anhu radiyallahu da bu yal na mbalaan ne ci kawam bokk radiyallahu anhu radiyallahu anhu bo buy gis nga ah, soo ak za ak zë ak za ak xoo gis nga juróom-ñaari xeeti saara yoo xamante ne bu ci ne ak koy tudde mooy xoo waaw soo za wa zë cha ak sa juróom-ñaari xeeti sa nga yoo xam ne bu ci nekk mu ngi ci biir bu ci ne nag ak lu muy dox boo ko boo dee bind arab bu ci ne ak la mu du foo jotee saa rek jël benn saa woowu rek daal di fay sànni gis nga léeg-léeg ñu bind wala yaasi mu ko mel ne naasi ñu jël ñu jël siin bu wow wow ñetti bëñ yi daal ko cay bind fekk na du noonu ak yeneen ak yeneen mu tax rida ruda gis nga da ak boo gis nga ta noonu la amee itam ta ak po siraatal mustaqim siraatal siraatal lazina an'amta bu dee ca tukulóor yi siraatal lazina la ñuy wax boobu sax day leer ndax ñoom moom noonu lañ koy prononcé mais bu dee yow mi jàng nag nga ne siraatal siraatal ta déedéet siraatal mustaqim siraatikal mustaqim am na ñuy wax loolu siraatikal mustaqim siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim gis nga xa ak xo ak xo ak xo du benn xo xayril maxduubi bokkul xayril am na ñoo xayril maxduubi wala xayril maxduubi xayril max xayril maxduubi alayhim wala daalliin gis nga boo daa bi day des day day des waat foofu wala ñun dañ doon dañ doon song ci njàng mi fii ne nii bu ma doon làkk tubaab léegi bu ma ci dama ci demee yax rek gaa yi song ma <laughs> oustaz Mbaye doo yow vraiment yow de yeewu na déedéet <laughs> te ñun léeg nit waxee noo xam ne nii da xam ni kii yéene la waxee rek waaye barakallah bu ci ñag yi boo làkkee tubaab moo xam dama nga yax moo xam defoo grammaire nañu fexe xam rek yow li nga li nga bëgg a wax su ko defee rek ngeen mën a jëflaan fii nag dafa mel ne ñun ñoo bindoon dictionnaire tubaab moom booy làkk tubaab sax ñiy def journal sax da ngay gis am ñoo xam ne dañ lay woo félicitation merci yow sa français yi dafa leer di jëbëg noonu la mel nag ci daara ji léeg-léeg nit taxaw def discours arabe wala mu def jàng alquran baat bi neex lool waaye yàq ya na ca biir bu ñu la ko doon waxtee da ngay da ngay ma moo tax euh, boo demee ndar euh, ndar jàng fa alxuraan yombul de man maa ngi sama benn xarit boo xam ne mu ngi fii ci jàmmalaay ñu naan ko instant Ndiaye <laughs> instant maa ngi koy ziar maa koy du baax euh, di profité ji daal jàmmalaay sa jaale leen soxna Njende Jaw ñaanal ko yàlla ko yàlla yërëm instant xale bu ndaw la ndar la jànge daal suñu Muhsin ci ñi ma dimbali ci la bokk mu mosaan jàng alxuraan dana sa yàq nga baat yàq nga baat yi yàq yàq baat may dama woyof lool di ko wax nan lañ ko war a defee waaye baarakallaahu euh, yàlla na ko yàlla defal tawfiq Oustaz Oumar Sarr ak Malick Ba ñoom Babacar Ndiaye ak Babacar Samb ak Talibé Samb ak suñu mbokk baax yooyu yëpp nga xam ne ñoo nekkoon ci daara yi ñu ngi leen di nuyu baax te leen siyaare waaye ki nga rida rida ridan kaalaya xad xadara axdaran nee na amoon na kaala gu gu gu gu verte gis nga kaala yu vert yi boo demee ci tukulóor yi njabootu maam euh, maam maam Cheikh Omarul Fuuti yi gis nga ñoom kaala yi leen di ràññee mooy kaala yu vert kaala yu kaala yu vert yi boo boo mu ñu gisee nga lonkoo kaala yi rek Euh, am na ñu xam ne yow mii am nga fooy foo mu ni kaala yooyu nag yonent bi sallallahu kaana daawala hoo daawa nañ ko awante ahbaabuhu alxulafa soppeem yi nga xamante ne ñooy ña ko wuutu ci ginnaawam Ababacar Omar Ousmane Ali ne na kaala jii ñoom daawa nañ ko doon nante donnante min baadi xutbihim ci ginnaaw seen sang bi gis nga xutba xutba xutba mën na firi xutba ca ca ca jàkka ja waaye xut mën na firi sang mooy yaa xut bu yaa xawsu yaa mawlaay yaa wasaro ca ma ngoog mawlaay tigee bu nu tuddee eh, xasida sëñ Babacar Sy radiyallaahu taala anhu mu ngoog mu ni waxaasa milxafatan nee na yonent bi amoon na manto manto boo xamante ni bu rafet la kaana mu war satan da nga daan suub amoon a gën ñax goo xam ne dafa daan neex lool xet gu neex la ñax gi amoon yoon bi sallallahu alayhi wasallam daf ko daan suub def ci ndox tooyal ko ba buy ayee ji ci kër soxna yi bu musaan defa dem euh, da daan jël euh, mànto boobu suub ko ci mu ànd ak xet gu neex ndax ku bëggoon xet gu neex la sallallahu alayhi moom la daan def doon dem ci fa mu war a moome mu ne salli ma laa ji maa wax nag léegi gis nga wax ji bayit bi manqué na mu indi nga talminul bayti mu ne salli rabbi yàlla yàlla nga dolli xéewal jullite sëlmal salaatan xéewal goo xamante ne nii day dotti ko ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaddiyam yi ba mu mel ni aw waame waame mooy mel na taw noonu mu yuri yuri ko nee na julli ak sëlmal googu yàlla nga nu ko defal ci sang bi alayhi salaatu wasalaam mu ni lahu shiaarun dithaarun wal qamiisu kama lahu sarawilu fi lubsi xaaliqi numi bii de du ma ko fi ñemee wax mu mbaaba ma xool nu ko lijjantee mu ni lahu shi lahu shiaarun yonent bi sallallahu alayhi wasallam amoon na sous-vêtement nga yére yi ko daan ni mu ko doon tegalee lahu shiaarun am na sous-vêtement nee na di saarun am na turki turki njaareem turki bay laat yooyu ñu te ñaa eh, moom sa réew mbu moom sa réew yooyu wala turki njaareem wala njamput mu ngoog nee na wal xamiisu amoon tam mantu gis kon danaan jiital survêtement jiital ci turki bi turki njaareem bi teg ci nag làmbaay gu mag gi te mooy eh, manto bi mu ngoog maanaam euh, kii bi palmaan bi sàmba sembe boobu ba nga xam ne moom day jiral ñetti mbubu sallallahu alayhi wa sallam nee na kamaalawu saraawilul amoon na tubay yéen amoon na tubay waaye fi lub si ndax sol na tubay ji wala déet nee na num yi nal xilaafu nee na euh, am na ci boroom xam-xam yi ndax sang bi jëndoon na tubay ji waaye ndax mus na koo sol mu ne ñii nee nañu mos na koo sol ñii nee nañu musu koo sol xam nga nag araab seen aada moom ci góor ñi maanaam euh, tubéy bokk ci woon maanaam bariwul luñ koy kii gi nga ba màkk sax am na ci ay civilisation yoo xamante ne suñ ñëwee eh, dañuy wodd rek kere ba nga jeexee ba ñu dóor toilette <laughs> bu ñu woddee da ngay da ngay yéemu sa borom macha loolu moo seen civilisation waaw mu ngoog mu ne nag ama sharaaw fa saxiixun fi suduuri nee na jënd gi moom lu wér na ànd na ci abu abu hurayrata wala ci saxaaba yi kenn dem ba ca marché ba jënd tubéy ji ŋàbbal ko boppam saxaaba yi ni ko te nga ni ma yoro la ko mun ko déedéet nit moo gën a yella ci ŋàbbi bagaas yi boppam maa koy ŋàbbal sama bopp <laughs> allahu akbar sanga bi lu ne jàngal na ko alayhi salaatu wasalaam mu ni ko nag salaama rabbina ñaari julli ak sëlmal julli ak sëlmal yi sunu borom gi nga salaama yi sunu borom kuy sunu borom alxaaliqi ka nga xamante nii moo bind lépp te kenn bind ko al ala ka nga xamante ne nii moom moo gën a kawe ñépp alal xakami yal na julli googu ak sëlmal gi nekk ca kamu xereñe ba ñëpp mën koo jublu mu jublu ñëpp muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar gis kon sang bi alayhi ngi noonu lépp lu mu amoon maam alaaji malik radiyallahu taala anhu tënkal nañu ko mu ne mimman nabiyu ixtaazahu mindilu massahu minhu talatan nuuraha al ala min al wala li rek moo ni ma xtaaja li nga xamante ne bokkoon na ca la mu amoon annabi yonent bi sallallahu bokkoon na ca ya amoon nee na almindiilu nee na amoon na serviette yonent bi sallallahu alayhi amoon na serviette boo xamante ne bu musaan sangu moom lay màppoo moom lay teg ci yaramam pour ndox mi deñ nee na almasu daawoon na ca raayitam talaatan kanamam googu nga xamante ni dafa leer naññ naññ nañ naññ nga xamante ne bu la xoolee rek soo ko su soo ko gisee rek yëg ne gis nga lu yéeme te ni mu muy leere ci bëccëg noonu lay leere ci guddi suñu yaay Aïcha nee na toog naa ci néeg bi di ñaw timis ji dugg mu lëndëm ni naa xaaral ma profité euh, gaawantu gaar lii bala muy àgg booba taalaguma làmp bi waaye sang bi jóge jàkk ñëw dugg ci ne mu leer nañ ma ni ah lii moom leer na di puso bi bi mu waddee maa ngi seen puso bi ni muy lerexe ngir leeru xarkam yonent bi sallallahu alayhi kon sang bi kenn du woon moomatewul du woon kenn nuruwul ak kenn kenn nuruwul ak moom keroog bi mu gënee jamono te Aïcha maanaam te yaay maam Halimatu Saadiya ñëw doon ko jël si ba mu ñëwee xool ko ni damay wut gone gu ma nàmpal yaay ji ni ko ah, gone gi day man de naa gone waaye dama lay wax sikki si ci nekk baayam de dundul bu dee xaalis la moom buñ la mën a jox nekku fi boo ci mënee jaamu yàlla nag ñu jox la ko soxna si déglu li ko li ko kii wax mu yaramam daw waaye boo fekk na rek yàllaa ko nar dimbali ndax yàlla bu la naree dimbali am na loo xamante ni moom doo ko sax doo sax hésité naka mun mun ko demal xool ko mu dugg ci néeg bi ubbi ko fekk ni xaram gi leer nañ ñi mel ne làmp mu ñëw ni koy jonga ma lay yéen a mën a yàq nitu taax daal moo texit waa làmp bi ngeen taal ci néeg bi nag mu ne ko du làmp de demal nga xool mu ñëw xool ko muy kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam leer nañ ñi mel ne làmp ci bëccëg bi ci la ci la xam ni kii dana dana dana doori dara mamalaa ji maa ngi nee na almasu servetam boobu ci la daan raa ci la daan màppoo talaatan xarkanam gu leer nañ nuurahaa leer ga ala moo gën a kaw minal xakami ci mboolem euh, lu yàlla xereñe barakallah mu mel ni kon bunt boobu <laughs> jeex na ci kàttanu suñu borom subhaanahu wa taala buntu 24 mu ngoog ñaar fukk ak ñeent ci la ñu nekkoon noonu ah bu ñuy ñu ñëwee ci àjjuma ji la ñu dugg ci buntu ñaar fukk ak juróom ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm yàlla yàlla mootali yëpp doon sutura xéewal maa ngi ñuy waa jàmmalaay gépp di siyaar waa jàmmalaay gépp di leen di leen jaar suñu mbokk mu baax mu soxna Njenda Jaw yàlla ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana di jaale bu baax tam njabootu suñu Alioune Sall Safiyatu Oustaz Sarr ak Mahfous Aydara ak imaam Ahmed Guèye imaam Abdou Kane Guèye ak mboolem notable yi yow goxu yëpp ñu leen di masawu te di leen jaar leen bokk oustaz Alioune Sall lay bàyyi toogu gi léegi incha allah mu ñëw yéen ci tafsiru quran bu daanee la ma jox alxaaji Mbàkke Sylla moom dama ñëw ci xamtu incha allah Mbàkke bu fekkee xar mi mbokku ko <laughs> macha allah ndax bëgg na yàpp trop euh, bu ñu ci jógee rek dinaa ànd ak alimul allama alxaaji imam Mor ci guddi gi ñu ñëw ci al minbar Pape Ablaye Dieye mon ami frère moo nekkoon technique bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala